Ngaaka ñu ngi lay fekk fii nii nga ñëw euh, seetaan si match Sénégal fan zone lan moo tax nga déplacé wu ci fan zone yi. waaw maa ngi lay fay di fay internet yu suivre euh, émission bi yëpp ah waaye c'est normal parce que étant un Sénégalais c'est normal bu lion yi di football ñu ne occasion la pour ñëw ci fan zone yi partagé ko ak suñu ay fans partagé ko ay suñu ay public voilà parce que ay moment yo xamanteni ne la bëriwul lu muy am donc ci période yu am yoy lañ mëna profiter pour voilà gëna am euh, affinité ak suñu public manina ni naa ñëw seetaan fi marché bi ak public bi. première mi-temps bi jàll naka nga gisee match wa première mi-temps bi jàll na bi may ñëw xawna naa na quoi mais lima jotté gis maa gis ni bon lion yi peut-être fiñu japp ni bu féké bañu ci deuxième mi-temps bi war nañ mëna am war nañ mëna am dara parce que tamit Algérie nekul équipe bu ndaw mais aussi gaynde tamit bon espoir lañ tay si si si équipe yi dem Coupe d'Afrique yépp je pense que euh, war nañu mëna dem même bu ñu jëlul coupe bi war nañu mëna dem ba final. en parlant de gaynde yi jeunes ñun ñëpp nek ay jeunes naka nga gisee euh, lynchage bi ñu doon def crépin diata mu nek jeune jeune footballeur. Euh, bon, de mon commun c'est... Bon, je pense peut-être... Waouh, waouh, waouh, je Bon, en tant que jeune, comme Nieva, hein, c'est-à-dire, euh, appréciation, bon, je pense que mon appréciation, peut-être, peut-être jeune, pourquoi Parce que taille, vous faites que vous êtes dans le c'est bien yon. Li war n'yep wala li war n'yep que ça soit muy jeune comme muy autorité comme lu wara don mo ñu essayer xol ñu lay jappalé ñu lay tégué loxo pour nga atteindre say say objectif donc de ce fait pour man euh voilà ñep ñay wara xol nan lañ mëna nan lañ mëna ko taxawé ba nga xamante ni fi mu war a egg war na fa mën a egg pour man mooy sama point de vue quoi. tooñ yi ñu koy Facebook beeg yooyu noonu. pour man mooy li ma wax cest noonu yëpp

perce fonce que mën nga atteindre ses objectifs mais aujourd'hui dañu dem ba ba nek nekk sax mun naa ben culture chez nous bu nit defee ben fay wala ben ben lu ndaw ci domaine bu muy bu muy nekk rek après au lieu nit ñi jox courage mais dañ koy sànni ay xeer dañ koy clash dañ koy togn dañ koy moquer et puis loolu mun nako décourager loolu Physique, j'ai dit mais mais mais en fait je parle de manière générale peut-être physique cette fois-ci mais en fait de parle d'une manière générale parce que souvent mun na ñaanuñu arrive kenen ko xamanteni du mom on arrive à on arrive nit ci domaine donc de ce fait man limay ñaax moy ak nit ki ci domaine bu domaine bu mu mënti nekk di ci évoluer bu amee benn lacune boo xamante ni am na ko ñu gis ni kii nii mën na percer parce que il a le talent nañu essayer pour motiver ko nañ essayer pour encourager que loolu moo gën. kon naka dénoncer loolu noonu tooñ. waaw man ànduma si ah sérieusement waaw ànduma si. sa fans yi nga xam ne nag bokk nañ si nañ ko bàyyi nañ ko bàyyi nañ ko bàyyi. Eh, eh, eh. <laughs> lan mooy sa pronostic. Euh, waaw ba may là, 2-1 là. je ah waaw ba suis ko je ko là. ba suis là, je peut-être deuxième mi-temps waaw gis deuxième mi-temps war na là. a yëngu quoi war nañ am 2 quoi Je d'accord lan sa bilan gis Je la aussi nga def euh, soirée nga Je ko arène nationale concert bu bilan après concert. waaw satisfaction totale ah. peut-être euh, comme nous

voilà quoi il faut xam nga gaay mobilisation pour support satisfaction totale nga am artistes tamit voilà stade bi show bi nice voilà donc satisfaction totale la ci am et daf may gëna ñaax daf may gëna yokku euh, yokku fit yokku doole pour ëllëg ñu xol lu gëna kayo lool non quoi. mais gis na vidéo yi gis na la ak lan la. waaw <laughs> gis na gis ngeen ko. <laughs> waaw sama xarit la quoi sama la et puis. Eh, nit ko xamanteni la moy limay wax léegi léegi en fait day am nit ñi nga xamante ni dañuy am luy nelaw ci ñom mais il faut nit ñi di len motiver pour ñukay koy pour ñukay yé yee Mbathio artiste la même bu féké ci mbalax bi la évoluer amna yenen facette yo xamanteni découvrir nako ci mom et puis bu naa ko raploo sur scène <laughs> comme que souvent bu gars yi di woo mbalax maani ñu ne waru ñu woo rappeur waru ñu dem ci mbalax maani wala mbalax waru ñu dem ci rappeur yi mais man damay essayer toujours di di indi yenen facette tay boo mais gis na la nga ko waaw mais <laughs> loolu grave loolu grave loolu grave loolu grave la et waaw xam nga seen bee ko si son bi ñu doon nekk di waay moo ko laaj ñu dund ko nice quoi au calme dund ko si pet comme ni mu koy waxee moom.